asalaamualeykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. salaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen a seetaan seen émission Kouthia Show tey nag nga xam ne nag mooy suñu euh, bés bu njëkk ci semaine bi di altine nag euh, di le 17 euh, novembre 2014 le 18 novembre 2014 ñu am mbégte ak contentement tey dina ñëw ci Djibo Leyti Ka bi yëkkati ay tontu yu ñaw daal koy tontu Abdou Diouf waaye Abdou Diouf tamit ci boppam. dina indi ay leeral li tax Djibo Ka di ko tontu am na fu mu ko teg Moustapha Niass bi tontu Abdou Diouf daa day wax ne wax dëgg yàlla mënoon nañ tudd lu ne génn ko génn génn ko ci cooloolu moom ci boppam tamit dana bokk ci ñuy tontu Abdou Diouf Cisselo yëkkatee kàddoom nee na waa PDS dañoo war a tëj ca fi nga xam ne moom mooy stade Iba Mar Diop ràpp ñu def fa seen meeting bañ génn ci mbedd bi loolu daal mooy solution Jules ne day delloo njukkal Lions yi nga xam ne ginnaaw yàlla yonent bi ñoo tax tey mu a sigg ci kanamu sénégalais waaye François Hollande bi yëkkati ay kaddu ne Ablaye wadd bu fekkee ne dafa nar a yëngal Sénégal moom bu ñëwaatee France du fa dugg Ablaye Wade moom ca boppam ak préparation yi nga xam ne mooy meeting bi ndax xam ngeen ne tey la talaata àllarba alxames ñaari fan moo ci des ñu dem ci bés bu mag bi nga xam ne moom mooy ajjuma nan la koy préparé ci këram ak njabootam ak ñi nga xam ne ñoom ñooy faamu PDS yi kon tey mbokk yi programme bi noonu lay doon Djiboka Abdou Diouf Moustapha Niass Cissé Lô Giresse François Hollande ak Ablaye a doon seen programme ñu am mbégte contentement nag ki feggoog toog mi nga xam ne mooy si son bi Matar Dia ak Malick Ka Abdou Diouf ak Cempi Modou moom ci boppam tey ca caméra bi ngay toog di xool programme bi nan lay tëddee di am mbégte contentement ci njaay bi nga xam ne moo ne foofu ci ambiance bi euh, nga xam ne nag moom mooy Go ak Abdou ñoom ñaar nag ñoo nekk ca percussion ya di nuyu tamit bu baax pénitentiaire ak toutou sans oublier Mami mi nga xam ne décoratrice la artiste boole ci rax ci ñu nuyu tamit maman la grande maquilleuse bi nga xam ne nag fan yi di ñëw dana dem antenne TV euh, fële nga xam ne mooy TV5 pour am fa stage yu maquillage ndaxte àddina amul solo te moom yëgul woon information boobu kon mbokk yi nag loolu mooy li nga xam ne moo gën a fës ci xibaar li ñuy def nag moom mooy <coughs> oh, aya allo waaw Sara <laughs> Cissé Sara <laughs> waaw maa ngi gis nga may bipé après laa laajte ñëw sa numéro waaw non Sara bi bijou bi nekk seen TV kooku dama doon foog moom rek mais wuy ma man bu ma wóoree ne li ngay wax dëgg la boo defetee journal dédicacé ma ko non am amul ci benn télé mais dama la ko ñaan boo paratee journal ne la ce journal euh, la la est dédié à euh, noonu wala ce journal est dédié à Abou Bilal non xolal loolu amul benn problème xolal Youssou Ndour dama ko koy wax dinaa ko tàggu non kon léegi d'accord nga amul mais Sara man balaa may gëm ne wax dëgg yàlla yow d'accord nga ne vraiment ñun ñaar léegi mun na nekk mooy nga defal ma benn dédicace mu ndaw sa journal non mais Sara <laughs> mais Sara wóor na yàlla yonent bi ñëpp ñu naan ma affaire bi Kouthia bu nekkoon dëgg booy sa affaire booy mais Sara dimbali ngir yàlla rek <laughs> xam ñu bëri na couple bi àndul mais Sara wóor na yàlla yonent bi quand deux amoureux se rencontrent dans une maison de presse communication bi bu ñu amee billahi wallahi taala yàlla bu ñu mayee bant doom ji day jullal def journal <laughs> mi mi mi mi mi Sara wuy ta famille ñu ngi ci jàmm mais nga nuyul ma paa bi vraiment xam nga paa bi tamit artiste la cinéaste la te ëllëg mën nañoo soxla xam <laughs> kooku kooku seddaay la ñu ma nañ ko jël la mu nekk suñu bon <laughs> waaw nañ ko jël mu nekk suñu bon waaw ma ne naa lépp ñoom ñoom dañ leen a yónni Bougane moo ko yónni jox ko xaalis ne ko nag foo romb Kouthia xeeñal lu neex promet ko ko waaw su ko defee jéem ko débauché ci xel pour ma ñëw foofu no xam mais Sara Sara maa la defal délicat maa la defal poésie bi oh Sara taille fine mais pas fine teint de chocolat au lait avec beaucoup de chocolat sans lait oh Sara quand je te vois le 20h présenter le journal télévisé je sens que tu présentes l'information sentimentale à travers mes pensées. Oh Sarah Cissé, une belle voix mélanculeuse. Oh Sarah, terre africaine métagée. Oh Sarah, quand je te vois parler et sourire à la fin du journal, je sens que vraiment c'est quelque chose, un clé d'œil entre toi et moi. Sarah, je suis prêt à donner mon salaire pour toi, souffrir, mourir pour toi. Sarah je suis prêt à kidnapper tous les techniciens caméramans journalistes comédiens tous les animateurs de TFM pour te faire plaisir et te présenter un journal sans définition avec une définition sentimentale Sarah Sarah Sarah je veux que tu remplaces tous les animateurs et animatrices de la télévision tu présentes le Yeewu Leen tu vas présenter le Wareef tu vas présenter le journal et même Kouthia Show Kouthia Show Sarah Sarah je t'aime Sarah Sarah Cissé je t'aime Sarah Sarah je t'aime Sarah Sarah Sarah je t'aime Sarah Sarah Cissé